ci Tab Tab Euh, dellu di leen dalal jaamu ci actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee ci mbas mi ñeenti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo dolleeku waat ci lim gu ko fi euh, jot a amee euh, ñeenti téeméer ak fanweer ñeent dolleeku ci lim gu ñu jot a ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent dolleeku ci lim gu si jot a ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeekoo libération online féticheur bi di Amidou Sidibé daal dinañuy xëy defeere ko ci kanamu procureur waaye nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di rek Awa Sow di xaritu lobbe ak Dakha Soumaré taximan bi ñoom it mettre nañu leen ci disposition parquet ji ci suba la accident bu métti am ci route nationale 1 bi ci booru Ndioum ministre bu ñu dénk wàllum transport di Mansour Faye nag dem na fa nga xamante ne fa la choc ba amee ba loolu weesoo ministère am la ñu xamle ci boobu le accident lépp dinañ leen koo xamal ci nam mu gën a yaatoo jawrin bu ñu dénk wàllum économie numérique ak ay télécommunication di Yankhoba Diatara daa taxaw rek di ŋàññi sorti ya nga xamante ne ni moom la njiital Pastef bi Ousmane Sonko mujjee def waaye it kii di Bougane Gueye Dany la leen xamal rek way la la mu leen yëkk dinañ leen ko xamal mbirum Jakarta yi mu ngi jël ampleur ci capitale dakaroise bi gannaaw ba mu amee ay ndaw rek yuy jël ay moto ngir yóbbu nit yi ñu leen di fay li ni mel nag autorité étatique yi dañoo taxaw ngir rek jëlee ko fi ndaxte dañoo jàpp ne bokk na ci luy kaarang yu ñuy euh, nemmeeku euh, ba tey rek euh, ci biir xibaar yi danañu àddu rek ci xibaar bu nakar yi bu jib imam Ousmane Gueye moom moo wàññeeku moom nag dinañ leen ko gën a xamle la ci yile jotaayu ba xibaar daal dinañuy fësal ab vidéo bu bees buy gën a dugal kilifa ci mbirum supposé trafic visa yi ca boobule vidéo nag mu nekkaat ci biir oto ak même nit ka nga xamante ne ni moo biraloon vidéo bu njëkk bi la ñu fa waxtaanee lépp dinañ leen ko xamal mbirum kilifa Y'en a marre daal dinay eh, wone naka la ci taxawee ñoom nag eh, raxas nañu si seen loxo ba mu set wecc ci ab communiqué bu ñu def eh, daal di si indi ay leeral si na Y'en a taxawee rek ci yooyulee tuuma ñu gàcc ci ndodd kii di kilifa kuréel ga ëmb borom ñaari tur yi dañoo gasal ndëgg sërëx doomu Mame Mactar Guèye Jamra bi si voyage am bi ci États-Unis si nag Mame Mactar Guèye Jamra daal di wëlbateeku ndëgg sërëx ñoom si seen jëmu bopp lépp na mu demee ne euh, élément Jamra bi daal dina koy euh, xamle kaas euh, yi la ay policier yu commissariat spécial bu Touba dal di teg loxo ngir acte contre nature ak pédophilie waa joojee nag dafa sëggoon rek ci ay taalibe papam bi nga xamante ne jàngalekatu daara la di leen di sàkku ba kenn rek ci ay waajur victime yi porté plainte ñu daal di koy teg loxo Xaadim Mbuup mu soloon col jigéen bi ngir rek defal gelam bi baccalauréat Euh, moom moomee nag euh, fi mu ne nii dafa traumatisé wu bu ñu sukkandikoo ci famille am lan moo ko traumatisé dinañ leen ko xamal laataa ñu ci toftal xibaaru tàggat yaram ak mbirum Augustin Senghor li moo ci gën a fës yaatal wi ginnaaw bàkk bi lay doon. mu nga ko maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di dellu di leen dalal jàmm ci yile jootaayu ba xibaar mbas mi la ñu koy dooree tey ñetti junney doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñu daal di testé ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ñoo ci amee coronavirus bi juróom-ñaar fukk ak benn yi dañ leen wàll ñeenti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar yi di ay cas communautaire ñeenti téeméeri doomi aadama ak fanweer ak ñeent faj nañ leen ba ñu wër juróom-benn fukk doomi aadama ak ñett ci ñoo amee feebar wi sonn nañu ba ñu nga étage ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent dooleeku nañ ci gu si jote ñàkk seen bakkan ba ñu amee di coronavirus bi ba jamono ji may waxeeg yéen juróom benn fukki junne doomi aadama ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñoo a amee si ñoom ñoo ñee ñeent fukki junne doomi aadama ak juróom-ñett ak juróom fukk ak ñaar faj nañ leen ba ñu wër junne doomi aadama ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñàkk nañu si seen bakkan fi mu ne nii fukki junne doomi aadama ak ñeent ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo amee coronavirus bi fii si Sénégal ñu leen si euh, traité. Babacar Niang képp di médecin chef clinique suma assistance la ñuy teewlu ni ki tey ci àllarba gi ay éléments yu commandant Adama Niang bu brigade de recherche de la gendarmerie nag ñoo ko war teew lu euh, ngir beneen mbir convoqué nañu yeneen i ñaari célébrité bokk ci homme d'affaires Amadou Ba ak maître Mamadou Diop ancien administrateur bu ay groupe de presse yu bëri ñoom nag ñoo ngi leen di xaarandi ca ay locaux boobule brigade nekk ci avenue Faidherbe bi eh, li ni lu ko wundu mooy ab plainte ngir faux et usage de faux ak escroquerie eh, si yooyu rek njëgub juróom fukki milliards si suñuy koppar bu société Locafrique eh, bu Xaadim Ba doomu Amadou Ba dirigé ñu woolu ko ca brigade de recherche ni ki tey jilee ci àllarba gi docteur Babacar Niang bu suma assistance demul wuyu ji waaye nag du coobare boppam ndaxte nee daa jógee ko rek ci tawat Euh, docteur Niang mu xamle sax ab certificat médicalu ñaar fukki fan leeral leeral na ni wax na ay avocat wam ngir ñu dem brigade de recherche ngir ñu xamal ko lu waral convocation wam bi ci fàttali docteur Niang dafa xamle woon ni matériel public bu ñu jagleel xeex ko ba mbas mi daal dañu koy jaay ci privé yi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeeko libération online féticheur bi di Hamidou Sidibé daal xëy defeere ko ci kanamu procureur ngir la mu parquet tamit Awa Sow di xaritu Lobé ak Daha Soumaré taximan bi ñoom nag wàllum complicité lañu leen di toppee ci kàddu yamu yëkkati Hamidou Sidibé daa njëkk wax ni Awa Sow moom moo faat Lobé Ndiaye ci këram bu nekk Thiaroye Azur laata muy xamlewaat ni loobu Lobé moom moo ko attaqué tax rek mu jël cour dóor ko ko ci bopp di certificat de genre de mort bi daal di dëggal waaye itam firndeel na ni Lobé encaissé wul benn dóor ci bopp dóor yu bëri lañu ko dóor ñu njort ni nag ñoom ñoo dimbale en connaissance de cause féticheur bu yóbbu néew bi eh, ca Diamniadio Awa Sow ak Daxa Soumaré nee nañu dañoo yaakaaroon ni eh, béy moo nekk ci maalu oto bi mosuñu woon naa ne ndox ni nit la eh, bu weesoo poste bu rek jam ñaajo section de recherche plateforme numérique buy xeex wàllum cybercriminalité ak cellule nationale d'identification criminelle dajale nañu leen ci cadre enquête bi colonel Abdou Mbeng sax di chef légion ouest waaye itam ancien patron wu section de recherche moom moo wàccaloon boppam ci terrain bi ngir dimbale ñii di enquêteurs yi. démb ci talaata ji ci suba la accident bu métti am ci route nationale 1 bi ci booru Ndioum ministre bu ñu dénk wàllum transport di Mansour Faye dem na fa choc ba amee ay service um, nag uh, daal dina ñuy xamle élément enquête yu njëkk yi bu ñu sukkandikoo ci résultat yu njëkk yi ministère des transports nee ab bu marque Mercedes-Benz immatriculé SL 1469B bu Ousseynou Mbeng doon dawal joge ko tare ji moom moo mbëkkanteeg benn auto marque Hyundai immatriculé MT cinq quinze place oto boobee nag Cheikh Oumar Diagne moo ko doon dawal jóge ko njuuma ba ñu xoolee choc bi kenn ci dawalkat ya daal nee nañ da nelaw ci volant ba ba tax rek mu jël beneen sens ba auto it daañoo surchargé woon bu ñu xal xoolee li mu victime yi du samay kàddu ministère bu yor wàllum transport ñoo ko xamle ba tey juróom-ñaari soxna nag ak ñeenti góor ñoom ñoo ca ñàkk seen bakkan bokk ca chauffeur ya ci ñu si jëlee nag ay gaañu gaañu ñaar ñu ngi ci état bu doy waar ba ñoo ngi réanimation njiitu réew mi mag Macky Sall daal dinay xamle métit ba mu yëg ci accident bu métti bu am ci tali bi ca croisement Guédé ak route nationale 2 bi ca Podor bilan bi nag diis ci diggante Ndioum ak Tare ji fukki doomi aadama ak rek ñeent ñoo ca ñàkk seen bakkan ba ñu sukkandikoo ci xibaar yi ba Ndiaga Ndiaye bi daal mbëkkanteeg minibus bi juróom-ñeenti doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ci saa si juróomi hôpital bu Ndioum la ñàkkee seen bakkan njiitu réew mi nag daal di koy méttitlu tey ba noppi di ñaanal it ña si jëlee ay gaañu gaañu ngir ñu wër ba seen i ay activité jëwrin bu ñu dénk wàllum économie numérique ak télécommunication di Yankhoba Diattara daa taxaw rek di ŋàññi euh, sorti yu njiital Pastef bi di Ousmane Sonko def bu yàggul dara ak Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp euh, ci situation sanitaire réew mi gànnaaw loolu mu ne Sonko ak kii di Bougane Gueye Dany daal indi luñ lenn suñu réew mi di Sénégal euh, bu ñu sukkandikoo ci Yankhoba Diattara moomee sa njiital Pastef bi di Ousmane Sonko daal comme virus Covid 19 bi mbirum Jakarta yi mi ngi gën di jël ampleur ci capitale dakaroise bi maa ngi leen ko doon junju ci ndoxtel li euh, situation bi leen nag autorité étatique yi dañoo ko fee bëgg euh, jëlee ngir wàññi accident yi euh, rax ci dolli circulation bi demeewul na mu waree demee ci capitale dakaroise bi lieutenant police waaye itam commandant wu compagnie de circulation bu commissariat central bu Dakar di El Hadji Malick Niang xamle na ni daal police jël na ay disposition ci phénomène Jakarta yi fii si Ndakaaru ndigalam ne li nu mel nag mënul jàll fii si Ndakaar dañu ko tere ba loolu weesoo muy leeral ni bu dee ay moto ngir livraison amul problème waaye nag ngir di yóbbu ay nit mënul nekk daal nañu ko fii daal dakkal démb si talaata ji ñetti fan ci weeru août ba ñuy amal ab activité ci sécurité routière bi la El Hadji Malick Niang xamle li nu ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz maa du ci xibaar bu nakkari bu tàbbi imaam Ousmane Gueye moo génn àdduna àdduna moom moomee moom moo doon animé rek émission religieuse euh, bii di lettre musulmane way la tontu bataaxal ñu ko doon euh, dawal euh, alxames bu yàlla sàkk ca RTS imam Ousmane Gueye nag démb si talaata ji la ju ji boromam ca baax ñi ba 17h jotee ñu daal di koy denc moom nag da doon permettre musulman yi sax ñu gën a pratiquer seen diine na mu waree yàlla na ko yàlla xaare ca aljana daal dina ñuy fësal vidéo bu bees buy gën dugal kilifa ci mbirum supposé boobule trafic de visa yi eh, ci boobule vidéo ñu nekkaat ci biir oto nag eh, waa ji mu ngi ko si eh, joxaat koppar bu bëri lool jox ko passeport am ak bu soxnaam ak yeneen membre famille am naan ko rek gérel ma lii muy juróom-ñaari million ak cinq cent mille francs CFA si kilifa ne ko dinaa essayer ndaxte foog ma toog ak consul bi direct su ko defee dinaa xam nu ma koy expliquer ba loolu weesoo nag kilifa ne ko ndax bëgg nga diplomate waa ji ne ko bëgg naa ko tey mu ne ko daa am benn gain bu ma koy rek euh, business la waaye nag la muy laaj moo cher di 6 millions maanaam juróom benn million waaye nag bu ngeen jubboowee une semaine rek mu lijjanti ko di li ni mel nag doon luy firndeel na daal mbirum defaru ba visa yi wa illa dox si ay tànk kii di kilifa mu nga ca yëngu bu baax a baax maam góor Diazaga daal dinay réagir ci mbirum kilifa bi la ca xamle nag moo di affaire kilifa képp ku siiw mën na see rek jël leçon te moom sax maam góor bés bu yàlla sàkk mu am ay proposition ya nga xamante ne ni su ko nangu woon nit mën na see profité wu rek am fa mu ko jaar ci noonu mu ne nag boo nekkee artiste bu ñëpp xam danga war a moytandeku te kilifa rakkam la ñu yàgg di demlante ba tax na la mu koy conseillé daal mooy mu plainte ka nga xamante ne ni moo ko filmé bu ko defee mu wax ana lu waral mu daal di koy filmé ba koy biral ba tey rek ci mbirum kilifa ak yoon lu ca Y'en a marre xamle ci ab communiqué bu ñu def Y'en a marre dinay leeral ni bépp mbir bu dal rek kenn ci seeni ay membre te bokkul ci seeni ay activité dañu koy jàppee lu personnel lu laalewul dara ak mouvement bi ba loolu weesoo ñu ne li nu mel nag moo tax Y'en a marre yoonam nekkul ci yooyu lee tuuma rawatina mbir ya ñu doon wax ci vidéo bu mujj bi nga xamante ne ni daa wuuteeg ay valeur ak kii rek ay principe yu mouvement mouvement bi di yàgg di xeex ci espace public bi euh, ci fàttali kilifa sa jotoon naa xamle ni day dàkkal ay activité am yëpp ci seen mouvement boobee di Y'en a marre Mame Mactar Guèye Jamra ndekete dafa gasal ndëgg sërëx rek euh, ña taxawoon di xaarandi mu yóbbu doomam ji ca réewum États-Unis euh, donte ñoo ngi doon dégg Pape Mbaye di naan rek doomu Mame Mactar bi xam ne quartier bu mu nekk ca États-Unis day jaay boppam Adamo tollu fee naan Mame Mactar jëlil sa Euh, xale bi génnul euh, Sénégal li ni mel nag papam moo ko xamle ne daa annulé woon voyage bi euh, bàyyi leen ñuy kàcc rek di dajale gannaaw loolu lane ne nag ci groupe whatsapp boroom ñaari tur yi seen benn audio daal dafa senn ba mu ca jot moom maxtaar ñu ci ay lalal ay ndëgg sërëx doomam ji ngir bu ñëwee États-Unis nee na nag si noonee la daal di annulé voyage bi ndànk te kenn yëgul tinul ba leen ci biir nag ñuy kàcc di dajale kaas yi la ay policier yu commissariat bu Touba teg loxo ngir acte contre nature ak pédophilie ñu defeere ko tribunal grande instance bu Diourbel xale bu góor boobee atam toll si ñaar fukk ak benn placé nañu ko sous mandat de dépôt doomu jàngalekatub daara boobee nag daa su gondek ci ay taalibe papam di leen di sàkku gannaaw ba mu leen doon neexale ak koppar m jon di yaayu kenn ci victime yi moom moo sol ay dàllam rek jubali fa mbaxane doone benn dal di porter plainte ca police bu Touba si noonee nag la taalibe boobee ay atam toll si juróom nettalee lépp na mu demee. Xaadim Mbuup mu réerantal ñu bëri ci lu tolloog ñetti fan gannaaw ba mu rek solo col ko jigéen ngir lu neex gelam ngir defal ko baccalauréat bi procès moom Xaadim ëllëg ci alxemes bi lañu koy dal di ubbi ca tribunal bu Jurbel ak comme conseil maître Dioma Ndiaye famille am nee nañu Xaadim nu ñu médiatiser daal mbir yi ak critique yi ci réseaux sociaux yi daf ci fàttali Khadim Mboup yëkk nañu ko rek lu ne am na sax ñu koy naan dafa hypothéquer avenir am ndaxte étudiant la. tàggat yaram mbirum Augustin Senghor laa koy ndar képp ak la moo xamle ci candidature am bi président fédération sénégalaise de football bi nag nee na mënul gantal fu communauté football bi ci sàmbum ndëndëm donte xamle woon na ni sax du defaat beneen mandat gannaaw ba ñu ko falaate atum 2017 daal kii di Augustin Senghor dafa candidat waaye nag lu tax muy samp ndëndëm nee na rek sàkkuteefu communauté football bi la.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 jërëjëf Tab Tab Seen